lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. asalaamaaleykum waa lu xew TV maa ngi leen di nuyu cat ba cat mbaa yéen ci jàmm. ah théâtre bi tey moom yéemi waat na gën naa yéeme waaw naa yéeme mais Cheikh moom ni nga dawalee tey moom macha allah dawala rëlu kilifa rek dawala rëlu kilifa moom nag moom sa yaay moom Cheikh nag sa yaay kenn xamatul sax fu mu koy classé classé waaw Cheikh sa yaay lu moom jàppal ma jàppal la ndaw ah sa yaay sa yaay nu mu bëgg def nag waaw na nit nag boo ko ne bëgguma la gis comme bu ma bañ bëggee gis bañ a gis samay butit loolu wax wax la wax bu rëy la yow yow yow yow Cheikh sa yaay nag woo ko ci ruq nag ngeen waxtaan rek waaw woo ko ci ruq rek ngeen waxtaan li am am na ba pare na jàpp yàlla waaye du noonu waay ah waaw léegi Jalika maa ngi lay nuyu waaw Jalika ah mbir mi de mu ngi bëgg a ëpp loxo nag lëpp nag lépp yow la ah. yow la lépp yow la. yal nañu yàlla defal jàmm kontaan nañ trop série yi moom day gën gën di xóot di gën di neex macha allah. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV nuyu naa leen di leen ziar baax a baax di nuyu képp kuy seetaan maîtresse ak maa ngi lay lu bare bari di leen ziar yéen ñëpp di wax ne kontaan nañ ci seeru tey bi dëgg yàlla kontaan nañ ci trop. di wax ne gorote yi moom comme ça lii rek la wax heure bu nekk day am waaye jigéen bu nekk ngay yaay sa doom lu mu bëgg rek war nga ko koo bëgg la fekk si ko si te xam na jigéen xelam dafa gàtt war na di woo mayram di ko encourager di ko xelam heure bu nekk di ko delloo si waat na ko du defee ni nii la ndax sëy moom bala nga fay toog wala bala nga fay def dara rek forse di am ku la jàppale soo ko amul heure bu nekk si te ngay dëkk surtout xale surtout xale bu doog dugg ci néegu sëy nag waaye heure bu nekk yaa ngi koy xas heure bu nekk yaa ngi koy wax lu ko naqari moom yaakaar moom tam li muy def defeen la rek noonu war a defee rek te sëy moom sëyu léegi heure bu nekk mag ñee ci war a bokk di ne am na xarit boo xam ne xarit lañ am na xarit yoo xam ne duñ xarit waaye xarit bu lay digal lu baax di la ko defal def loolu loolu mooy xarit waaye xarit boo xam ne heure bu nekk da lay suruxal di wax naa defal ne defal ne loolu du xarit ñuy kontaan séeri bu baax a baax di wax ne képp kuy yaay daal lu sa doom bëgg rek bëgg la ko ko ndax àdduna lu dara te sa doom lim bëgg ba andi ko kim takk ba andi ko rek bëgg na ko kon kooku bëgg la ko ko bu dee bëgg nga sa doom waaye instant bi Cheikh Diagne Cheikh Diagne bu fase Mariam Tam ah mun na nekk problème ci moom de te yaay ji bu comprendre fan lay mujj. waaw ñu ngi kontaan baax a baax a baax série bi dëgg yàlla neex na trop macha allah sénégalais yëpp a ngi koy seetaan. asalaamaaleykum Lu Xew TV li ngeen def ay na si jàmm ah li ngeen def neex na li ngeen def moom baax na baax na am na solo am na solo yal na yàgg fii ñu ngi bëgg yéen a ko xam yal na la defal incha allah ci kaw ci kanam rek waaw man kii maîtresse d'un marié laa waxal. yoo dem si guddi neex na démb moom macha allah macha allah ma démb maa kontaan si xarit Lalla bi maa que xaritu Marème dafa ñëw defante ab sax na ku ko man de fekk na ku démb jombe nañu kontaan naa Lalla moom dama kaa bëgg sama ci biir xol dama kaa bëgg ko taal sama xol. sama cons la am na yoo xamante nañ koy def nañ niñ ko xam ay série la dañuy jouer rek pour xam ne am na waaye du tax kok du taxul kooku bon na taxul kooku bon na daal nañ sóoraale loolu waaw beneen bi tamit mooy mareem na xool yu muy sol mareem suturaawul boppam suturaawul jigéen ñi xanaa xamoon ne jigéen benn ku feeñ rek jigéen ñëppay feeñ jigéen ñëpp a feeñ jigéen daa war suturaal boppam xam boppam fu xam mooy kan ñu ngi si sëri bi rek di defante rek comme ni ñuy dundee si kër loolu yoo xamante ne boo ko defee sax jëkkër ak góor ñu toogee sax lu war a am xam nañu ko lu ñu war a defar xam nañu ko am na ñoo xam ne waruñu egg foofu dañuy wane exemple rek am na yoo xamante ne wax du ko eggali xawee ko matali waaw ñu ngi def mu agsi moom. yenn saa moom dara du neex su ma xool rek suma xol bi di jeex parce que jigéen dangaa war a sutura sa ñu xam ci biir néeg yi lu nekk ci biir daal gis rek xam nañu foofu waaw ziar naa leen nag bëgg naa la dugg yàlla dugg waaye xam naa tey yàlla dugal ziar naa salaamaaleykum lu xew tv baa na yéen a ngi si jàmm maa ngi leen di ziyaare yéen ñëpp leen laaj seen jàmm ak jaam jàmm yaram série bi démb neex na trop macha allah kontaan na te waaye Marème Diagne rek Marème amati na problème mais Marème nag jëfi démb moo ko fay tey jii parce que Marème moom maire bi gis nga bi maire bi di ci kër gi ni def ak moom wax ak moom moo tax maire bi mooy ba gën da koo soupçonné maire bi tawoo soupçonné ci commencement ba gën parce que bu Cheikh toogee li muy def bokk bu wéttee bi li muy def moo tax nag day wane ni capable na maire bi tam wan ko ni maa la gën a foofu moom maanaam daal ku ne moom moom maire bi daal ku ne da ngay jaayante maanaam sax kii bopp daal sax xel bopp mu ñoom ñaar mais nag Marème tam wax dëgg robam bi moom doy na waar ah doy na waar moom Marème nag sañ sañse nag di def tay sam yu baax nag di sañse di tagalu nag di def yu baax a baax a baax wane ni moom jéeg piir la nag moom la war di def nag ah doy na waar daal waaye neex na trop macha allah yàlla la fal mais biram tam ndeysaan tam xaw yërëm naa ko nag biram tam yërëm naa ko daal ndax xëy na bëgg naa baax mais mënta baax daal biram daal bëgg naa baax mais mënta baax mais joor tam lim dugg si ne nii instant yi ëpp na boppam daal moom tam mais day na waa daal série bi daal neex na trop macha allah kontaan nañ trop trop yàlla na leen yàlla la faj cat daal xoolal bu leen toppatoo bu leen faale doxal leen seenoo yoon dem incha allah léppay baax mu sow yàlla kontaan nañ trop trop trop. yéen a ngi yéen nit ñi yoon baax yi ngeen nekkoon ba ngeen teggeekul leen bu leen diglu waxi kenn bu leen faale waxi kenn bu leen toppatoo Sénégal nag moo nekk noonu dem te bu neexuloon bu dugguloon seeni bopp kon ñoom duñ ko seetaan ba am leneen loon si kii ndax buñ ko loon tàppe kon duñ xam li ci xew lépp ñu naan ñu ngi koy tàppe di ko seetaan kon waruñu see mën a kaas dara li tax ñu si kaana affaire moo dugg seen bopp yéen la de temps yi moom yéen a koy bomb loolu yàlla def na ko kenn mën si dara. asalaamaaleykum waa kër gi ñu ngi leen ziar yéen a ngi ci jàmm naka seen zone bi neex mais daal série bi daal man jooyloo na ma tey moom tey moom Mariam Diagne yërëm naa ko torop torop torop billaay xaw ma affaire yi mu fa demee mais daal sama yaram daw na tey daal jub ba mu ko dalee seetaan ba léegi mais bi nag mënoon na ko ñàkk bañ def nii pourtant Mariam bonul de. Mariam moom bu ko kenn sikka ca la mu defoon te njëlbeen ba parce que Cheikh la neex. seex bu respectoon laala di ko du gàddu Mariam indi ko ci néeg bi waxuma la ci lali laala nañ waxante dëgg foofu nag passé nañ instant boobu noonu fiñ toll nii mu ngi sëy ni mu ko waree mu ngi oote jàmma te laala bëggut jàmma goroom bëggut jàmma kuy wax na wax dëgg Mariam amul benn sikk xëj na sikk bu jëkk bi seex moo ko ubbil yoon bi seex mooy boroom kër moo takk jabaram teg ko fa bu fekkee ne moom nag gis na lu ko doy gàddu ko indi ko waxu ko ne dama laa yóbbu sama kër jabar sama léegi jabar dégg nga lam ko wax yow foo ma indi nii sa néegi jabar tey lay dee boobu de moom dégg nañ ko waaye nag yow mi sama càmmeñ yow mi wax noonu amul lu dul passé passé nañ instant boobu fi mu nekk nii mu ngi ci sëy bi ba mu ngee defar pour jàmm yàlla sax boo ko tooñee boo ko jéggaloo mu jéggal la waxuma laa nag nit njaaye Marème ci oote jàmm rek la nekk dafa nekk ne rek ay ñu bon rek la fa fekk te soxor soxor nag moom soxor tànge nag moom yàllaa ko yeeyoo te yàlla soxorut. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV leen nuyu yéen ñëpp waa bëggoon naa wax rek si maîtresse d'un homme marié dëgg yàlla film bu neex la série bu neex la te ku ci nekk yaa ngi ci gis sa bopp. vraiment léegi-léegi ñu joué loo xam ne moom yow dalay touché sax ndax da yaakaar ne lii yow yow lañ koy yow lañ koy defal vraiment jali jalika am na lu muy dund loo xam ne man mii sax dund naa lu mel noonu nekk lu métti ci man waaye bi ma seetaanee ak fu muy mujj fu mu mujjee ma xam ne ku muñ rek da nga mës a muñ mère bi moom. mooy yaayu goro goro Marème moom ah na changé xam ne àdduna du dara nit ki moom bu bëggee sa doom ba indi ko ah war nga kaa mën a bëgg def ko si sa xol boobu même boo ko bañee sax nga nëbb ko waaye bul ko fësal vraiment mère bi moom léegu-léeg da nga koy xool sax da nga koy mere ndax ay doom lu ñu ñàkk rek walla problème bu ñu nekk rek moom bokk na si kon war na góorgóorlu baax di xool ci doomam bi tamit te xam ne àdduna daa am solo te doom bu bëggee dimbale ko ci lam bëgg même bu fekkee bon na sax wala baax na sax dimbale ko si waaye vraiment moom ni muy doxalee moom yàlla bu benn meer benn goro roy ci moom loolu daal nañuy ñaan benn goro bu mu roy si moom maa ngi leen sant nag bu baax di leen gërëm série bi am na sens am na solo lool. ndax ku si nekk yaa ngi ci gis sa bopp ci lu baax wala leneen looy def loo xam ne dëppawut ak lu baax yaa ngi ci xool daal njàngal la daal. asalaamaaleykum waa groupe bi maa leen di ziar jox sama participation ci groupe bi gëj na maa dugg nag fan yii damay seetaan rek bàyyi noonu waaye démb moom. moom dëgg li ma diis moom damaa naqari trop trop trop non mais mere naa ko wàcc Serigne Saliou mere naa ko trop trop mais Diagne li muy def mareem baaxut moom li muy def mareem baaxut mhm. war a yemale ñëpp xam ne ñëpp ay doo jabari doomam lañ waaye jàpp farak kii ànd kii bàyyi kii moo mën a ñàkk mais Diagne daa dig yàlla moom soo mere naa ko se Diagne ne li ma koy conseillé moom na jàppale mareem parce que moom jàmbaar la bëgg naa sëy laala moom nañ ko tege à côté ne moom moom moom temps yi moom doxul dara doxul meetar asalaamaaleykum waa Maîtresse TV maa ngi leen di nuyu bi di nuyu ñëpp nekk ci groupe bi série Demba bi moom am na solo neex na trop neex na trop waa joor moom <laughs> biram mu ngi lifin de mu ngi am am lu fulla de ah, baax na si tuuti de ma ko baax na si tuuti de ma am fulla jël lifin tuuti nag am fulla ak fayda waaw waaw meram meram du nit de meram de moom xaw ma ban façon nit la meer jaañ tamit keneen la de nit ki di ko ñëw di ko tuubal si mu jaañ ah. daal moom mooy loolu daal moom daal bëggul meeram comme ni mu ko waxee rek xam naa la daal meeram moom soo moytu diggante ma ak seex dina dina dina yaaxu de dina yaaxu si de billaahi wallaay seen diggante soo moytu dina jeex de waaye joor moom lu mu am rek baax na lii daf ko mooy du dafa soxor bàyyi ko rek soo moytu léegi mu ne moom nañ ko fase loolu la bëgg ah, biram ma ko bàyyi <laughs> moo gën si moom de parce que moom xam naa ne biram du nangoo delloo xale bi kon na jox xale bi yaayam calika gars yi nekk ci seen jàmm am seen jàmm du loolu moo gën gannaaw mu ne moom bëggut a gis xale bi ah, ah lii de garaaw na moom lii moom garaaw na de Moustapha moom bég naa si moom torop moom rek waaw waaw ñoom kay léegi dañ war a sëy rek loolu moo fa war a nekk sëy lañ war a def daal ñoom ñaar mooy lool série drama bi daal am na solo torop neex na torop ñu koy seetaan di ko déglu am na solo torop neex na wax dëgg neex yàlla kontaan nañ torop torop torop meeram nag moom wax dëgg neex yàlla ko waaye nag deful dara de waaw waaw dara nag wax dëgg yàlla gars yi dañ ko sonal moom na bëgg naa sëy waaye gars yi ñoo ko bëggut goro bi bëggut njëkke yi yaa ma gën xam waaye seex bëggu na ko ah baax na na muñ rek xëy na lépp dina jeex incha allah suñ demee ba si kanam mun waaye xam nga si starting bi la rek statut bi moo waral lii yëpp moo tax dañuy wax ne jigéen da nga war a am fayda si sa bopp respect sa bopp bés dina ñëw lu bari du di diñ ko rëccu lool la rek waaye yàlla baax na neex na trop série bi am na solo waaw aussi tamit maa ngi wax ci série maîtresse bi waaw man nag awalaa de man maa ngi Kumba Sall waaw a ah, lalla moom wax dëgg yàlla na na na rek te muñ te xam ne lii yàlla moo ko ko teg na ko nangu gis nga jigéen ju nekk boo nekkee ci kaw suuf yaa ngi ñaan wujje waaye yaa ngi ñaan yàlla na la yàlla tegal dajaleel wujj bu baax waaw wax dëgg yàlla maram nag moom awma dara lu ma koy wax parce que moom xëy na moom jàppewu ko dara bëgg na woona ko ci jàmm laala moo ko nangu te wuyu woona ko ci jàmm woona ko ci kaf woona ko ci ree waaye moom itamit na laala na jëm bësante xolam te muñ jigéen bu nekk ci kaw suuf am jëkkër faaw ma wujje dara nekku ci ànd bokk wërsëg rek la waaye yal na la yàlla dajale bu baax rek yal na la yàlla dajale rek bu baax yow nga tombe ci nga tombe ci baax nga xam ne bii baax na moom it na xam ni magam la fekk si bu mu ko manqué bi respect mukk na ko jox cër jox ko gëddam te góor ñi bu manqué ci seen aawa yi seen aaw yi nañ leen jox cër guddi jox leen cër bu jëkk ba keet bu bu buñ takkee ñaareel dañu xam ne ñaareel bi jëkk sama jëkkër ji sama aaw bi teg na ko place sa fonk na ko foofu tamit ci borom kër yi la waaw ndax borom kër yi ñoo war a toppatoo seen aaw yi bu baax bëgg leen bu ngeen nëbb dara gis nga nëbb bu ëpp bii moo wane moo moo doxalee lii lépp ndax lépp si nëbbut la lu ñuy nëbbutu bëgg nañ ko kay la ko damaa bëgg diw dama koy bëgg takk loolu dara nekku ci am na si ñoo xamante ni gaa dañ naan damaa bëgg diw aaw ba jaar fee yàq ko patajee patataa ci wax ay wax yu ñaaw am na jigéen ñu koy def gaa waaye jigéen ñooñu di ko def tamit xel ci yàlla nga xam ne ci àdduna lañ nekk fii lu fi waaye indi rek faaw ñu bokk ko lépp dañ ko war bokk yow mën nañoo indi dara rek nga bëgg koo aatinoo ah, yow kese mën ta nekk jamais jalaa bi nit day bokk surtout maag jigéen day bokk. Kër Jalika nag man dina ma be kii torop bu sëy bi amee dina ma bett torop na Jalika bëgg na waa ji dèjà waa ji bëgg na ko mais daal yaay waa ji moom ak euh, xalaat na daal ñu indi problème ci diggante bi te xalaat naa bu ñu indi ci diggante bi xam euh, dina takk Jalika dem si dem si Jalika yaay waaw mais boo ko nag yaayam accepté moo gën Jalika daal mën naa ne film bi dund ko ci bonheur bonheur carrément en tout cas day na waar trop quant Biram nag ni mu réactionné ak joor euh, noonu la war a réaction ak moom waaw Dior moom dafa woon ni euh, Biram réactionné ak moom dina tax bis bi xale bi ñëwee tamit dinay bàyyi xel bu baax loolu waaw parce que li li def ba tax gisee xale bi euh, kii di am lu ko metti moom moo ko def xale bi def ko ko kon na bàyyi doom jàmbur waaw man daal koy mettital xale daal bëgguma ko mareem tamit bëggee nekk sama xarit na bàyyi kële nuuraa bàyyi xale bi kat xale bi yoonam newu ci waaw maa ngi leen jaajëfal yéen ñëpp salaamaaleykum sama waa kër wala li xew TV maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay si suba gi waa di wax ne maîtresse daal macha allah neex na trop trop trop saa yu xëy daal day neex bi passé dama xawoon kii ba dugguma daf fii laalu doon jooyee ba doom ji dégg si noonu daf ma xawoon kii waaye démb moom neex na trop trop trop démb bi tamit neex na. waa nag dama ko yërëm parce que ñaari jabaram yi daf leen a bëgg te yaayam nangoo ko bàyyi libéré maam mën a dund dundam am bis bu ko doom ji toogee wax dara moom day kii si saa si ndeysaan daan bëgg na jabar ñaari jabaram bëgg na doom mais daal moom xamul nu mu war bi daal ba ñu jubboo laala nag ak Marème war nañoo fexe jubboo pour mën dimbali seen jëkkër ji waaw Ah, man nag Marème li ñuy wax yëpp nag fu dëgg yàlla gisuma lum def xëy na nag euh, ku nekk ak sa idée idée yi ñoo bokkul waaw Marème mu ngi def lu tout moom tamit lenn daal laa koy blâmer muy nuuraami muy waxal na bàyyi doomu jàmbu ji du muy def mu defante ko ak Lalla waaw mais nag film bi neex na trop trop trop waaw. maire bi nag moom man jaaxal na ma trop man maire bi ma bañ Marème rôle ba mu joué woon ci Jalika rek la bëgg a joué waat ci Marème waaye na am Marème na am fulla te jëkkëram te palaasam te jéem a jubboog laal la nekk ci benn parce que wujj moom bokk wërsëg rek la waaw buñ fi nekkee di indi ay kalam moom indi ay problème Marème di indi xaalitam laal la di indi xaalitam day yàq seen sëy te day yàq seen diggante te àddina dafa gudd tànk te lépp dafa mas a rafetal ndax ëllëg a tax waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu série maîtrise euh, ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax baax di leen di ndokkeel di wax ne épisode yi am na solo lool vraiment kontaan nañ ci lool ñu ngi ciy bég di ci kontaan bu baax a baax baax di wax ne ñu toll mu ngi ñuy jàngal bu baax a baax. Euh, di wax ne li xew ci kër yi rek euh, moom la film bi wane léeg-léeg da ngay dem mu yàgg nga ne xanaa sax ñi ci sama kaw la nekk waaye moom daal vraiment ñi ngi defar bu baax ñi ngi rafetal bu baax ñi ngi rafetal ci diggante aaw yi bu ci meloon noonu wax dëgg boo seetaanee film war nga cee jàng bu baax a baax ñaareel bu ci mel noonu tim boo jàngee boo ci euh, série bi da nga ci mën a soppeeku daal bu baax a baax ba tax ne li nga xam ne si moo nekk ci kër yi mënuñu ko wax ñoom lañu maîtrise di waxal di waxal li nga xam ne si di waxal dina ko feeñal bu baax a baax baax am na ci loo xam ne lu nëbb li ci bari li yëpp ku seetaan film bi bu fekkee ne dangaa nekkoon ci lu bon wala nga nekkoon ci loo xam ne si du noonu yaakaar naa ne euh, série bi dana la mën a yee bu baax a baax a baax euh, Lalla ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Mariam ñu ngi lay nuyu baax a baax vraiment bëgg ngaa si lool mais nag. li ñuy wax naan goro bu bon rek goro bu bon daal vraiment dana yàq ñu bari bari ci xam nga ndey dafa foor ci doom boo xam ne si lu mu wax doom rek da koy daal di def ba tax na maire yi ci kër gi itam maire jaan ci yooyu itam wax dëgg na ngeen wàññi xam nga ne ku bëgg sa ji sa soxna ba takk ko topp ko yaati ba takk ko wax dëgg loo bon bon bon bon bu ñëwee ci kër gi war ngaa mën a soppeeku daal ci nga xam ne si kii sa doom da ko bëgg ca booy dof dof lu ba nga xam ne si jóge na ci kër ga mën naa indil sa doom ay problème nit ak mbëggeel ga kenn waru koo tas li ci bari daal yow war ngaa mën a defar ndax sa doom ki mu bëgg ba indi ko ci kër gi bu demee ba sori ko wala mu dem ba gis geneen góor di ko yor kooku mën na koo indil beneen saaru bopp buy metti wala leneen daal ba tax na maire yi ci kër gi ah, nañu jéem a eh, topp ci seen doom ci li bëgg ca lu metti metti bu ndaw si bonoon ba bon sax tim yow war nga koo mën a topp ndax sa doom moo ko bëgg ndax kii bu sore sa doom xamoo nan la koy wàññi ñu ngi ci kontaan bu baax a baax waaw lépp tim euh, doom yi mm, laalal ji tim vraiment moom it xam nga doom ji mel noonu bu fekkee ne dafa nekk ki waajuram waajur yi day am problème parce que dem na ba seex xaw am problème ndax doom am na kàddu yoo xam ne bu la koy wax rek dangay dem mu yàgg nga euh, xaw a gis sa bopp mais nag. doom xale kenn waru koo yar ci loolu vraiment yarin bi rafetul dara na ni xoolaat kër yi bu baax di xoolaat doom yi bu baax a baax euh, mère Diagne man bi ndaw si sëggee ci sa wet nga di ko tàpp tàppal loo ko wax daal man xaw na maa jaaxal loo ko wax daal ba mu topp xool seex xaw na maa jaaxal daal daal xam naa ne lool tim dana nekk beneen sakaas ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu asalaamaaleykum waa kër gi waa groupe bi ça va yéen ngi ci jàmm bu baax a baax a baax euh, waa maîtresse moom démb daf ma raw mais après seetaan naa ci YouTube bi euh, mais man man bi man mère bi man laa mënul supporter li muy def ndaxte say goro nam leen yamale bul bëgg kii bañ kii ndax ñoom ñaan ñëpp bëgg nañ sa doom waaw maire bi daal ni muy doxalee ma neexuma dara dara dara dara wax dëgg yàlla rafetlu ko waaw maram ñu nekk mu koy def war na jàppale maram bu baax lii moom wax dëgg yàlla day yeete lu bëri bëri bëri bëri bëri suma sañoon daal moom maire bi jéem a changé jéem a bëgg maram waaw kër gi neex ñépp nekk benn loolu daal laa amoon lu ma ci dem wax maire bi daal na changé jël a ak lalla def leen benn waaw kër gi neex ndax goro loolu la war a def loolu la war a yamale daal ci biir këram ay gorom kon ay doomam waaw loolu rek laa amoon ma ci dem wax mais série bi neex na trop mareem sa rob bu baax na mareem sañ-sañ nga macha allah sa rob bu na trop Jalika nag macha allah moom moom wax dëgg yàlla. Euh, moom daal lu ma gën a neex si moom dafa am fulla parce que fu mu jël na doomam te jàmm na ñooy waaw gàcc bi nag joor moo koy àkkimoo moom nag après seetaan na boppam bu baax xam ne lu mu def waa lool la mën daal loolu laa amoon lu ma ci dem wax bu baax kontaan naa sama xol sedd na série bi neex na yéen ngi ne yéen nit ñi bu baax a baax a baax ñu ngi jàngate si yéen lu bare bare bare bare waaw man nag naa ngi leen di këram di leen sant waaw Marème nag muñal rek sëy da ngay muñ loo muñ mu jeex waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm ngeen jëf euh, série bi daal yal na jëm karam neex na trop yéen a ngi bégal nit ñi di sedd xolu nit ñi waaw di si yeeta nag di si jàngate lu bare bare bare bare bare yal na jëm karam bu baax yal na yàlla la fa cat yéen a xam fi ngeen bëgg a egg yal na ngeen fa egg ci jàmm salaam ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf série bi neex na macha allah yàlla bu naa leen maîtresse yéen ci jàmm waa seen épisode bi neex na macha allah mais Marème li mu ci dund metti na torop Marème yow moom wax dëgg yàlla méritoo woo ngay dund lu metti waaye nag li nga wane ci série bi passé li nga wane nii moom wane nga ne jigéenu sëykat nga wane nga ne jigéen bu sëy tax a jóg rek nga jeeg buy sëy bu nekk bu xoolee ci yow macha allah yaa ngi jàngal ñëpp yaa ngi woon ñëpp tamit lii àddina kuy sëy ku nekk war ngay roy ci Marema parce que lii mu def nii jigéen gu mën a muñ moo koy def jigéen gu mën a sëy moo koy def bu doon yeneen bu doon yeneen nit ñee gàddu na seeni bagage dem bu yàgg macha allah Marema góorgóorlu rek nga jàpp sa jëkkër bàyyi meer Diagne te xam ne lu dul dëgg lu nekk lu yàgg te bu bu mu waxee nag ba Marème génn kër gi Cheikh moom di ngeen ko bëgg a gis mu leen di tax loolu moom xam naa ko. waaw salaam salaam waa Lu Xew maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay waaw film bi vraiment film bu neex la maîtresse dama siy gis sama bopp bu baax daal waaw surtout nag épisode passé nga xam ne Marème li ko mère bi wax dafa ma touché quoi que. soo xamante sa jëkkër nu mel dina mel ni man mii di ndeyam la ko séexal waaw ah, loolu loolu dafa neexul dara ci xol mais nag li mu ko jaral rek li mu jaral meer bi Mariam yow tamit na la ko jaral rek man de loolu laay wax na la ko jaral rek parce que moom comme sëyam bi bakkanam la ci gar yow tamit gar ci sa bakkan rek man de loolu laa gis waaw ah, parce que lu ko jar moo ko jar. vraiment Cheikh Diagne tamit li ma koy wax mu am capacité yor ñaari jabar comme dem na ba tax ñaari jabar na am capacité yor leen du dëgg mais yow yor nga ñaari jabar ba pare ta ku la wax nga xulli ko ay bët vraiment Cheikh Diagne kenn mënu ko comprendre lan la dof doflu na ba génn ci xam nga commencé waat indi ay fiir te vraiment mare moom waaw taxaw na taxaw deuxième femme daal parce que li ñu naan deuxième femme day bari cas mais fi mu taxawee daal baax na man waaw Marème daal vraiment man félicitation man laa koy wax mais nag na garba kanam ci séem bi parce que dafa mel ni fi maire bi teg tànkam ba ko teggiwul a ah dina doy waar gëm naa ne séem ci tas lay mujje waaw maire bi nag vraiment suma ma sañoon nag nga bàyyi Marème mu sëy sëyam daal bëgg na sa doom te ki la bëggal sa doom mënoo ko fay. mais bàyyil mareem nag mu sëy sëyam ah yow deful la dara waxul la dara loo xamante ne bi war naa war a mën a tax bañ ko mais nag euh, mareem tamit boo xoolee tamit maire bi tamit nekkul sa noonu privé de moom bañ na la mais tamit daf la woon ne la dalaa bañ de waaw maytu ko bu baax maytu ay kàddoom yow tamit Cheikh Diagne bul déglu kàdduy maire bi sa yaay la dëgg la waaye nag bis boo digloo ay kàddoom di nga dugg ci loo xamante ne bii ëllëg doo xam noo koy lijjantee de parce que li muy wax lépp sa waajur la mun mun munoo koo munoo koo kii waaye li muy wax lépp boo xoolee bu ci biir dara amu si day soos vraiment daal film bi daal mënuñu wax li si biir yëpp daal mais nag film bu neex la daal ñu ngi leen di yéen yëpp nag kontaan nañ bu baax a baax. man la awa dëkk ba Thiès bëgg participer ci maîtresse d'un homme marié mais en tout cas affaire yëpp neex na macha allah lépp fa neex gisuma fa daal lu tax ci daal waaw maître Diagne daal en tout cas li wax démb ëpp na ëpp na lool lool lool Marème xaw ma tey fii fooy ne en tout cas laal ak Marème daal ku ne da nga jël laal la xool ko ci sa bopp. boo xoolee lala sa bopp doo ko mere nga jël ma dem xool ko sa bopp boo ko xoolee doo ko mere man loolu laa gis man maîtresse benn affaire rek laa ci gis loo xam ne daf ma déranger waaw mooy sëy biram ak xaritu jëlika boobu ñaa ñooñu daal seen sëy daal métti na ma parce que nit dangay bokk ak nit ndey ak baay li nga ñeme wax ak sa xarit doo ko ñeme wax ak sa ki nga bokk ak baay yow problème boo mënti am dangay ngay dem yaakaar sa xarit te sa xarit bu dootul ne def la loolu laa moom foofu day nekk trop moo tax foofu moom côté boobu laal na ma trop sax trop sax maa ngi leen di jaajëfal bu baax man aw dëkk nag ba Thiès di kontaan ci seen série bi lool maa ngi soog a participer nag xam naa ne moom léegi moom tout temps dinaa fal di dugg ok. salaamaaleykum waa maîtresse ah tey kontaan naa kontaan naa kontaan naa bëgg naa maîtresse bi 45 bi ah fi toj na waa Marème yow ana sag njàmbar ak sa fit <laughs> noo tey kontaan naa danga yedd woon renfort indi ñu bale renfort ba sa doomu ndey jooju kol crési ñàpp jege la rek te laa bàyyi yanu la musooroo la ñu daaneel ko ñu wax Maître Diagne jëfati na lim la def nee naa la gone day moytu màggatum proc maa la ko wax de non Maître Diagne kontaan naa ci yow dee nga ko dee foofu moom mënatoo ko maa la waxal di <laughs> madame da nga doon jaay bandi coupable criminel da nga fi fekk Maître Diagne maa la wax lii lan la xoolal dinañ ko xeexal ba mu saf du yow da ngaa uti woon renfort de yéen yaa da ngaa uti doomu ndey kooku naan la bàyyi naana bàyyi pepp bàyyi lii bàyyi laa ah! mi ngi noonu de man daal kontaan naa wax dëgg yàlla ñun ñi nekk Europe xoola ñu ngi wàcce suñu stress ba mu doon zéro noo neex na neex na li ëpp na ëpp na mais diggante couple Racky Racky ak kee eh, Moustapha ah loolu damay faj couple bu ma neex la mais Bakary mooy bandi Bakary di nga mën a yëpp ci film bi yaay bandi yaag biram moo tax nga mën a jur biram noonu. waaw man daal kontaan naa di ñaanal waa série bi bég naa bégati naa waaw asalaamualeykum waa mertes naka ngeen def yéen a ngi ci jàmm maa ngi leen di nuyu di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag ak ndaw ma ne seen série bi neex na lool neex na torop torop torop man nag lima am pour wax mooy affaire maram maram ah yaa ngi toggoon ceeb de waaye sa ceeb bi yaa ngi ko bugg a xejamal xejamal bi mooy lan yow danga nga nga fekk sa aawo ak doomam yow ni nga naxee seex ba jot ko noon nga war a naxee xale bi ba jot ko yow lool nga war a noon a def waaye doo ñëw ne dinga nga jël xale bi forcé ko si yenn defin yoo xam ne pour mu mun koo def su defee xale bi mun naa fippu dellu gannaaw yow am nga noo war a doxalee ak xale bi be xale bi ñeme la ñeme boo xam ne sax dina mun a fàtte ndeyam mi ko jur ba pan ñaareel ba sa xarit boobu noonu ne mooy sa xarit mooy sa ndey taxawal la ni ndey kooku mutut ndey parce que tey ku am sa doom nga muur ko mu dem sëyi bala sëyi danga ko diktal lu baax digtal bi mooy lan danga ko won ko soo demee jàppal say goro jàpp say njëkke jàpp sa rakki jëkkër sa mbokki jëkkër yi nga jàpp ñépp emale leen ñu nekk benn nga nekk jabari pour ça waaye doo nekk jabar joo xam ne lan set la ñëw di tasaare déedéet kenn du ko warut koo diktal doomam suy sëyi lu baax nga digtal sa doom waaye doo ko ne soo demee jëlal lanset di dog di sànni danga ko ne jëlal pusa ngay ñaw boole waaye moom mu naan ñëw kiram naan ko di ko wax pour ñu dépante ji ak xariti go aawoom xariti aawoom loolu tam rafetut moom moo waroon a jël aawa bi taaj ko taaj doomam maram ne aawa bi kii day saraka la ngeen bokka nekka benn ci kër gi yépp wërsëg wujja du dara bokka wërsëg la jàmmane ñooy waaye su ñëwee bugg a indi fitna ci kër gi fitna jàmma du am moo tax ma ne kooku doyut kilifa xarita maram sa xarit bi doyut kilifa man nag fii la suma wax em yal na leen yàlla jàppale lafal leen cat. dina dem asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di kontaan te yéen série yëpp laay déglu ci yéen damay seetaan ba pare ñëw déglu commentaire yi mu neex ba bëgg a dee nag waaw waaye Marème Ndiaye nag moom contre naa ko ndax dafa bëgg a yàq kër Seex jël ay xaritam di indi foofu ñuy lëmbal ka def lu leen neex. te kër gu tranquille lañ la woon kër gu euh, silwiise amuñ benn problème mu ñëw indi fa ay wudu jeex di fa def lu ko neex di di di indi ay xaritam ñuy xuloo ka di loolu amu ko woon moom moo bëgg a yàq kër gi gorom nag am na fulla bu mu yàq kër doomam mënut a sëy na dellu ca kër fa mu nekkoon ma seex di ko fa fekk muy defanteeg moom la muy def ak moom waaye moo gën mu ñëw fii di yàq kër jàmbu li muy def tegu ko ci yoon benn dëgg du benn yoon su ko defoon càmmiñam du ko neex waaw noonu loolu laa am sama xalaat ma ciy dëgg jàpp doomi jàmbur di xas di wax lu la neex yaay ja jox la noppi rek di la xool ngay def di avancé rek defe ne yaa ngi ci ngóora wala yaa ngi dëgg nekku ci benn dëgg ku ko jox dëgg nax nga ko waxoo ko lu am merci beaucoup. ba tey dañoo ñëwaat ci bi yoon ci cadre maire bi ak euh, Marème la wax. ndax euh, maire bi tey li ñu def marraine lu bon dëgg la de mais damay xalaat affaire bi tourné na tey ba yàqal seer lépp ndax li tax mu yàqal seer lépp instant bi maire bi dafa war a xam ne seer dafa bëgg marraine te tey moom maire bi su taxawee ne marraine boo seqatee ak seex man mii di yaayam la ko seqal foofu wax na lu rëy ndax dafa xamul ne marraine jógagul ci kër te tey seex bu soxna marraine marraine di bañ. te tey maram li nooru sa wax seex na ko sa yaay nee ma dee wala laal te maire bi dafa war a tey ndax tey moom istuwaaru maire bi bés buy am maire bi mbokk la ci maram te loo tax ñu naan bés bu kii wax dina jëf ko foojeewul kon damay wax daal ñi tey daal tey daal am na solo bu baax a baax te ñuy wax ne koo xamul nu ko yaay mag baayam bootee def ko ndànk da ciy kii daal bu fekkee dafa dem ci maaraam bu taas pour mu def ko ñaaw na torop ndax dana xam ne lu la ko def la ko na ko dindi parce que mère bi dafa war a yëram mareem ndax mareem soo ko xoolee xam ne amul matal na yaay amul matal na papa ndax mareem génneegul yaayam génneegul papa ça veut dire que kon ñi muy def nii yëpp ñàkk ku koy conseillé ñàkk jege yaayam ñàkk jege kenn ci wàllu yaayam loolu ci la bokk xaritam bi kese nañ ci xaritam bi tane wu ko sa xarit du la tane tane bu la mën a waxee lii wala laa da ci tey daal ça veut dire que kon bu ne bu ne seex dama fajo ji seex feebarul maire bi moo def li tax mu jàpp ko te tey ji affaire bi mën na dem tey ba aggravé fa tey ba nga xamante ne laal la sax day dem ba mere maire bi ndax li mu def seex ndax maire bi li mu def seex instant bii nii c'est dangereux de bu jàppee ne mareem na ko def nii mu ngi koy def moom laal la yépp te mi ngi ray am na yoo xamante ne danga koy def pour bañ nit ki fekk na yaa ngi rey sax sa bopp reyam boppam mooy lan mooy mi ngi rey doomam ndax tey su defee tey ba far seex jëlee ci télé tey meer bi fan la jëm ni mu def nii mën na dem tey ba jural seex pour mu télé mais daal ñu koy wax daal mooy na ne waat moom jëlaat jëkkëram récupéré ko amee wëcc du dara gis nga loo diisal mu diis mais instant bii moom doomam moo ko war ñor te pour lan doomam ñor ko mooy force mu xaccaat jëkkëram ñu defaraat seen biir dëgg la mare wujju la ñu ngi ci kër na ko gérer rek neexul na neexul heure boo xëyee jàkkarloo ci nga xamante ne xam na sa lal xam na sa jëkkër xam na lépp avant mu koy takk loolu neexul mais sama mbokk jigéen ñi tam nañuy teey salaamaaleykum yéen waa def maa ngi nekk si jàmm bu di ziyaare bu baax a baax ñu nekk si kii bi yëpp ku dee dina interview am na solo bu baax a baax waaw man am na ci xale bu ku jigéen koo xam ne ni mu wax damay ànd ak moom ndax li mu wax dëgg la ndax tey jii palaasu laal la ku ci toog rek di nga xam ni laal la di safee di nga xam ni laal la di dund metti na wala mettiwul ndax tey kenn bëggul tey sa jëkkër indi indi gelam tëdd ak moom ci sa kaw laal bi nga xamante ne yaa sa jëkkër yéen a ko bokk loolu moom neexul kenn mais nag laal la comme lii am am na ba pare te wenn ko ne marraine mooy saytaane cheikh kon na a seere rek loolu moo gën si moom yéen waa maîtresse siyaar naa leen bëgg naa leen yéen ngi si jàmm ma leen namewul de yéen ngi si jàmm bu baax yéen bëgge na leen di bëgge yéen defate amati na solo macha waa Mère Diagne moom nii rek lañ koy bàyyi ah mi ëpp na di ëppatina di aa yore moom yàq nga dere goro yi ci Sénégal yépp kenn bëggatuta doonub goro ndax yow mais janjaay yow mën nga di say kan nga rek di joué sa bal nu la neex nga koy fubale nu la neex nga koy jëmale fu la neex nga koy tiire léegi jëli kaa dem na yaa ngi ci mareen noonu rek la goro ko seqal ñoo amul fulla bàyyi ba lu doon may maram damay bàyyi ba seex jaañ dem ñaara nga rek le toog yem sa place toog sa kër waaw toog ke sa loole nga xamante ni boo moytuwut sax moom moom foofu ngeen di mujj boo moytuwut ay sa loolu fa ngeen di mujj waaw ndax denn li moom nit ki bu nu koy def rek sa jour rek di di di jàpp ay nit di leen torturer rek te duñ gis lu leen ko fajal di nga dajeeg lu la faj yow ah dama nga ji wax nga génne sa gémmiñ gi war na koo génne ci gémmiñam gi meer jaay seex bu tëdda tey yow dina mel ne ndayam la tëddal loolu war na koo wax ëpp na ëpp na nag bay tuuru waaw Lalla nag moom mi ngi tas seen kër te yóbbu mi ngi tas kër gi te yóbbu ko moo war a toog gérer sëy sëyam bii rek ne waaw lu fi jëf fër ji laa xamul yow masàllaa yor nga sa teint noir boo xam ne masàllaa boo defaroo ba poudre ba sànni sa musóor ñëpp sine ah looy fërfëri fees doo toog fees sa palaas di def sa yu baax ya nga daan def di woowee sa jikkër ji àjjana jël sa wujju wi def ko comme sa bopp Hmm? ngeen nekk ci jàmm génn seen xarit yi ngeen dugal seen bëri kër bu kii ñëwee ruube wax li kii ñëw wax li ñu leen baseen yi ngeen di def te sëy sëy bi yéen ñaan ñëpp kenn ci sëyut sëy bi nag ndax Marème sax yow soo normalul yow mi jiitu man ma normal duma indi sama xarit naan ko lii ak laa waaw wala lu ko lu la xaritu laala def mu dem nettali ko xaritam xaritam bëgg koo def xaritu laala gokka kanday baax deen wara déggoo nekk ci jaamu sëy moom wujjeedu dara jaamu yàlla dongu la ak bokku wërsëg waaw rafetal ko nag waaw mareem lim def moom kum doon yow di yow waaye nag jéema la fàtte du ñaaw sa jour tànk yaa ngi koy xool di ko téye ci sa xol boobu heure boo gisee mareem mu mel ni tey la la ko def nag danga war fàtte lépp waaw sa doom ji dafa ñaan yàlla sëy te yaa koy yàq Noura du def yi fi gone du ko wax waaw comme ni ko Marème waxee bu gisee Marème day mel ni ku gis butitam gi waaw léegi nag moom commencé sax far di imposé papa ji ndax nee na ko ndax bëggatooñ bi tata duggee ci kër gi ba léegi waxatoog mama réyatoo kafatoo defoo dara day dugg néegam di jooy rek loolu waxu xale la yaa ngi yàq sa doom nag te yëgoo ko waaw fu dem complice boobu noonu fu dem moom la fay nekk waaw nekk leen ci jàmm nag li ngeen di def neex na trop am na solo xaaj bi yëpp nag mi ngi ci biir yi moom di lëmbe moom xaaj bi ngeen di jouer parti boo ci jël rek am na ci kër yi waaw ñi ci kër yi moom macha allah ñoo ngi ciy gis suñu bopp bu baax macha allah li ngeen di jouer lépp a neex waaw. nekk leen ci jàmm yal na leen yàlla jàppale ba ngeen romb fii am ci lu kawe seen jot ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum waa groupe maîtresse yaare naa leen nii naa leen bu baax ci loo leen nekk yéen ah macha allah maîtresse moom temps na lool laala moom na na de daf na ba pare moom def na ba pare daal moom instant yi moom gàddu ay dàllam rek moo ko dese maire moom macha allah moom moom na jàpp fu mu jàpp rek fu jàpp foofu la maire bi moom bàyyi ko rek maire moom xam na lu muy def bu baax maire bi moom na kii foofu rek mu naan day kii day jéng nii di kii na tey kurusam wér di ñaanal doomam boobu moo gën ci moom moo gën mu nekk fii naan day far fii di far fele am na lu ko wax na ñaanal biram kii na ñaanal kee biraayam ak joor moom la war a lijjanti muy dem di lijjanti kër seex kër seex dara nekk fa daal di dem lijjanti ba pare waaw asalaamaaleykum am na benn vidéo bu ma seetaan sànq ne ci youtube bi wax ci affaire Marème waaw Marème day jaay jonge waaye laala aussi ne mënu la muñ nit bu ñëwee jaay jonge xam nga ñaareel ñoom yooyu lañuy dox léegi bu ñëwee dina jaay jonge ak bëgg laa jaay àdduna yow da ngay mat fees sa place doo ko naqarlu daal am na yu bëri yu muy jaay bu fekkee laal ma mën naa muñ dafa xam ne laal du muñ kat daal ci man ne ma ko gisee bu fekkee laal muñ kat la yu bari ma du ko def nit moom dangay ngay sa place ding comme moom mooy aawa dafa war a dékku lépp rek dafa war a dékku lépp du ma la xam même bu fekkee sax supporté ma la sax doo ko xam du ma la ko won dama koy nëbb cëfar cëfar yow ma di andi tamit dinaa ko dékku man daal loolu mooy sama xalaat ndax mare moom dafa ñëw pour kookali ko waaye man boo ñëw pour kookali aussi noo dikk rek ma jàppale ko ok merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatullah bi na ngeen dafa coono yi naka liggéey bi mbaam mi ngi tegu ci yoon dëgg la keroog bi bi ma la mujjee yónnee booba xam naa. Euh, écouteurs yi bi ma bi ma takkoon benn benn bi dafa dafa dafa dafa taxawoon xam naa moo tax mu mu am lëndëm lëndëm yooyu loolu moo tax waaye li may intervenir li may intervenir ci diggante bi daal xam naa boobu bu jàllee li nga xam ne moom mooy épisode bi passé dama dégg ñuy défendre xale bi gis nga sëñ bi damaa bañ maanaam xale ñu di ko dugg xale bi dafa man bu ma mënee ne dafa reew dama loolu lay dëggal dafa reew parce que maanaam gone dañ ko war a dug dañ ko war dañ ko wurta dugal ci yenn yi ci diggante sëy sëyu ndeyam ak baayam kooku yoonu xale da cee nekkut xale yoonu xale néew ci xale dafa wareem ci fi xale mais sëyu mag yoonam néew ci dañoo nekkul ci réewum tubaab moo xamante ni bii maanaam la nga xamante ni bii mooy euh, benn jabar benn doom kooku du réalité Sénégal ginnaaw yàlla may na ñun Sénégal lañu dëkk te yàlla may na ñu takk benn ba quatre femmes yaa ngi dégg de kenn ku ci nekk maanaam nañu respecté li nga xamante ni moom lañu nekk gune dafay yem ci gune yow tey jii boo nekkee gune walla nga nekk mag loo ci mën a lool jabar jabar bi nga xamante ni bi sa ni sa ni sa sa papa takk sa yaay ba indi ko fa ba am la ci ba takkaat keneen kooku na nga respecté sa ndey noonu nga war na respecté boo respecté sa papa laa wax de war nga mën a respecté sa deuxième femme papa loolu moom mooy dëgg mooy yoon gone kenn ko dugal ci diggante sa yu mag wala muy ku ku mooy ku wujjeel ndeyam gone du wujjeel ndeyam yoonam nekkul ci la ko war na ko war ci yëfi gone mais gone kenn du ko dugal ci sa yu mag lépp nag Marème mu lépp nag euh, Lalla moomu la parce que moo dugal xale bi ci ci ci ci kuje ndax ah, ci boppam lan la lan la war a mën a xam ci sëy yu mag tax depuis mu nekk mu nekk mel moom rek ak ak ak euh, papaam ak yaayam di jàng na mu war a mën a jànge nekk en les mu war a nekk baayam dugg ci ñaareel ndeyam amatul jàmm muy ànd ak ndey ji di ñàkk am jàmm wala muy perturber wu pourquoi pourquoi loolu ku ne ndeyam ci yëf yi gune loolu nañ ko génn ci yëfi xale ci ci yëfi boppi gone yi nañ ko ci génne gone ci boppam nam bu papam yore benn jabar ba ñaari jabar namu mu jàppe ndeyam noonu la war na jàppe jabar yi baayam wala mu maandu ci mais amul droit di par parloo wala muy kujje ni ni ni ni ni ni baal ma jox bi salaamaaleykum sama waa kër maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wóor a wóor di leen ñaanal jàmm ak ñaanal sama bopp yi bokk yeneen ñaan yaay na bi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di kontaan rek ci yéen bu baax a baax film bi macha allah bi seetaan nañ ko kontaan naa trop dégg naa mais nag vraiment vraiment vraiment doy na waar kaw yaay Cheikh yaay Cheikh moom. maire bu doy waar la wax dëgg yàlla maire ñoom kan mën leen wax dara parce que ay yaay lañu may nag yaay la joo xam ni moom mën na far kenn mën wu tere kenn mu far mais nag am yoo xam ne ëpp na am na ñoo xam ne comprendre ñu xëy na duñ yaakaar ne dafay wax Cheikh naka fase rek mu fase Cheikh ko fase bu mais li ma xalaat man taragal ko mooy man dama njortu ni affaire sëriñ lay wax parce que bu nekkee na nga jàpp ni Cheikh bu sëyeeteeg yow man mii di yaayam la tëddal kooku mooy dafa dem ci sëñ pour Cheikh dootu man joteeg ma dem wala bu joteeg moom dootu man nekk wala yu mel noonu xam naa daal laal na ci côté yooyu man sama jot loolu la ñaaw de toute façon doy na waar yéeme na trop trop trop yéeme de xam naa daal moom mère bi ragal naa ko man daal li ma ragal mooy. dafa dem ci sëriñ daal pour dëgdalee Cheikh ak mayam wala mu def ko loo xam ne bu nekk ak maanaam du nekk du nekk daal waaji man loolu laa yaakaar loolu laa ragal kanta doomu doomu Lalla nag moom xale dafa jóge yaayam dafa fiir rek dafa fiir la yaayam kooku moom gis nañ ko en général day am ci kër mais Marème aussi elle un peu dangereuse parce que Marème moom li wan kenn mu Cheikh ak li muy wane ci ginnaaw bokkuñu parfois mu dal ci kaw Lalla te te te te Lalla du ko wax dara keroog nga dal na ci kaw doom ak doom nu muy jege ndey yëpp Lalla àdduwul dafa ne pat rek toog di ko mais bu Cheikh nekkee ci kanamam du loolu lay wax gis nga bi maire bi doog dugg si lu mu ko wax nee li ngay def day feeñ man la may def du feeñ te bu gisee xattam daf koy influencer si mu ñëw di mu koy jàppale ci xeex bi donc Marème elle est un peu dangereuse moom dafa dangereuse parce que lu muy def ci suuf la koy def du ko def ci kaw. mais maire bi moom lu mu def ëpp na c'est trop c'est trop trop c'est trop te maram lépp lu muy dox yëpp lu muy def yëpp pour naqara laalal nag waaw ñaareelu ñoom ñu dee wax moom loolu duñ ko gis dañ naan rek nañu bàyyi maram nañu bàyyi maram macha allah elle est intéressante mais nag lu muy def nag moom day day naqara laala de moo ko tax a jóg day def laala lu ko metti def naan carrément ma ngi ciy rey bu gisee xettam am saa yooyu la koy gëm yooyu lay gëm loolu koy gëmloo donc loolu moo nekk ci moom Marème dafa dangereuse li muy wane ak li nekk ci moom bokkut waaw dafa dangereuse de mais ñaareel nag yéen bàyyi leen seen farfarloo bu ëpp bi waay eh bàyyi leen seen farfarloo bu ëpp bi nag te ngeen <laughs> affaire bi parfois da ngay da ngeen di comprendre mareem dafay day kooku lal de mais nag yéen du ngeen gis parce que ay ñaareel ngeen mais daf koy kokkali waaw daf koy kokkali ñun ñi nga xam ne duñu ñaareel duñu aawa ñun mën nañu gisee loolu. mais maanaam day kokkili laala kokkili ci la taxaw di ko def pour mu am lu ko naqari ci la taxaw te nag laala moom la ñu fekk si maanaam kan fekk si ko maanaam bu fekkoon moom la ñu fekk si est ce que du raw laala sax mais moom moo fekk si donc moom lu ko neex lay def laala moom moo am lu ko naqari waaw comme que man du ma aaw du ñaareel man naa am naa droit wax wax wax dëgg ji mais yéen ñaareel du ngeen ko wax. allo salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp waa internet waa seen TV xew TV maa ngi ziar ñëpp di jéggalu si gëj a dugg bi waaw <laughs> day rek jot waaw mu ngi noonu daal mais li ma jàng daal ci série bi passé moom ah neex na daal tey doy na waar trop triste na moom waaw man damay wax si intervenir si kiw marème bi euh, loolu yëpp waroon na ko xaar. fu dëgg yàlla waaw lii loolu nag mooy sëy xam nga dañuy jàngale ba tey rek si kaalalu sëy lañu nekk rek bokkul ak ngoro donc euh, loo loo sikkoon sikkoon wala loo doon defar sa jëkkër jëkkër léegi yow yaa ngi nekk si réalité il faut mu tourner la page si lu bari bari bari bari mu ngi noonu am na benn soxna bu intervenir maa ngi déglu benn kiiwam euh, dafa xaw a diis si nit ñi li ñuy commentaire genre genre euh, kii bi marème bi bari na dañuy yeete rek bari na léegi lañuy ñuy doog a découvrir yi mais dal na ay jigéen yu bari seen jëkkër def loolu ak seen seen seen euh, seen seen ex gel mu nekk jabar ci kër gi loolu am na wala mu ne buggul mu dem mu far takk ka loolu bari na ci àddina te it xale yooyu comme Noura ni mu nekkee ci kër gi noonu ñu naan dafa réew dafa kii nii bu jëkkoon yooyu am na mais xale du wax. yi ñuy wane jàngati yëpp dañuy jàngal ñun suñuy enfance yi ñu nekk yii yëpp dafa amoon mais temps yooyu doo ose doo ose daa wax ji da ngay sa yaay nekk si wëjj si kër gi di muñ affaire yooyu nag te bu jëkkoon dañuy boole lépp léegi mais comme léegi tout est démar euh, mode xam niñ koy waxatee euh, lu bari daal changé na ak mode yi léegi façon à vivre moyens yi aussi man lañ leen man man nañ leen de séparer pour man marem daal day passer épreuve daal voilà mu ngi noonu te ñun comme Sénégal ñun loolu suñu réalité ñaareel aawal ba ñeenteel donc euh, da si jàngat lu bari ak ñeneen rek waaw yombul nag rôle bi metti na trop lu ne dina ko si jégg mais noonu la rek parce que yëpp daf ñuy jàngat rek ñun sénégalais yi rek waa voilà loolu la dañuy wan ne rek ku looy looy def tey bu ëllëg na nga sóoraale ëllëg waaw parce que nañu tey du jër a sédd la xaw ma ëllëg du jër du tey mais lu jër a sédd la voilà loolu lañ naan sa tey sa présent il da nga koy defar pour ëllëg waaw moo tax donc euh, Marème bu xamul ne bu bu defoon loolu si néegu laal la du ni lay demee du ko def donc euh, lu metti yàgg na si àddina te li dal laala noonu da euh, kii la rek théâtre lii ba fa lu bari mais dafa am ay réalité la na jigéen yu bari voilà loolu la rek nit ñi am na si ñoo xam ne xol la ñuy waxee xol xol la ñuy waxee daal loolu la rek waa mais li yëpp ci éducation la bokk comme Noura ci éducation la bokk am na xale yoo xam ne dañuy duñu duñu wax day osé wu ñu ko sañu ko sax am na xale yoo xam ne léegi xale yi dañu wax xale yi dañu ndaw yi sax ci école yi léegi ak garde la ñuy commencé di bavarde di wax ay petits mots ay grands affaires yooyu noonu mais loolu du dara yëpp ci éducation la daal nañ defaraat suñuy toogaay daal waaw man daal fa dëgg yàlla daal loolu laa ci jàmbat. waaw loolu laas jàmbat man mère kii moom <laughs> mu ma si xaw a xawoon na kii daal tuuti parce que yaay la dafa war a uuf ñëpp mais pexeem daal man maa ngi koy xaw a ragal daal te am na mag ñoo xam ne ñu ngi Sénégal loolu du seen pexe meluñu noonu waat dëgg la séril la lépp mais c'est pas ose ni mu ose noonu daal xaw na garaaw parce que bu nekk man ci sama kii bu séqate yow man la séqal loolu sa garaaw parce que àddina dafa gudd tànk waaw balaa ngay génn mooy il faut nga ko bu baax lu doy waar daal la wax foofu man loolu moom a gën a touché si film bi si série bi waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm ma yem fii parce que maa ngi guddal. gi maa ngi leen di siyaare yéen ñëpp di leen bégee mm, yéen a ngi am tawfeex waaye yéen nag neexul ba neexul ah Marème sonn na sonn na trop waaye yéen nag bu ngeen xoolee commencement ba ba léegi si nii ngeen bëgg a jàppee benn problème du neex nit gis na ak nit bëggante ak moom muy Marème ak Cheikh Diagne mu di ko indi lalu lalla ba ñoom ñoom ñaar aawam bi gis ci am ci problème ak moom. xolam si naqar yi mu bett ko fa ay maintes fois ba Cheikh Diagne jël takk indi Marème di daw coow xam ne Lalla am na lu ko naqari mu loolu lépp mu bëgg mu dañ mu koy xëcc ci jaamu Lalla bu gisee noonu rek du mas a juboo ak Marème ndax lim sa commencement ba moom la lay jàpp xolom ba léegi si nii du masa accepté Marème mais moom jàmm la bëgg na ko ci jàppale ah mooy yoon man daal loolu laa gis te moom mën a nekk sax nag digg yàlla Marème amul benn problème ndax kenn mënul ta mucc waaw yéeme na trop daal yéeme na lool yomb na trop nag waaw ah Marème dafa xaw weex donc ko ci côté de weex na donc trop te moom jàmm rek la si bëgg waaw yéeme na moom maire bi ni doxalee waru koo doxalee Sidi Diagne da sa jabar force ah, ah ah loolu de yéeme na loolu de bëriwut a dégg wala bu amee ku ci doxale nu nekk amoo xel yéeme na lool mais Cheikh Diagne moom it côté am na fulla neex na ma lool am na fulla trop am na fulla mais mu doxale moom bu ko ci dara jële waaw gis nga seen bànneex kenn mënu koo dab ñoom ko yi yaay gis mu ne ko ne nga tuubal sama yaay mu dikk du ko tuubal naan ko yaay booy di jooy mbir bi nag naan ko dangaa bëri ay pexe waaye boo seqatee seex dara man la ko seqal xam nga loolu ba tey jaaduwut jaaduwut rafetul affaire bi daal moom goro bi sikk na aawam ba sikk na waaw nag action kenn du ko topp ba mu sës jaaduwul mareem deful dara nitu jàmm la gis nga xaritam bu naan ko defee nii defee nii dangay gis mu naan ko man bugguma coow problème bugguma ko jàmm rek laa bëgg ba gisoo même bi ñuy waxee ci suuf xaritu laa laa bi génn parce que xaritu marraine bi da koo wax ne ko ba mu ko commencé di wax da koo wokk marraine jàmm doom la bëgg lépp laa la la waaw ak ñi topp si ginnaawam gorom bi kenn gënu kaa sikk waaw nañ bàyyi xale yi ñu sëy liñ théâtre nii man kontaan naa ci torop loo am la am na trop trop kontaan naa trop ci série bi kontaan naa ci lool nañ xoolaat mag ñi nañ xoolaat toogee ni bàyyi xale yi ñu sëy seen sëy te xam ne dañoo bëggante suñu boroom kër yi leen li jaaduwul rafetul nañ bàyyi xale yi ñu sëy fasel sa jabar mooy lan parce que sa jabar mooy lan lool kenn du ko def baaxul sëy nga sa sëy ba mu yegg xale yu bëggante ba leen ñu sëy loolu jaaduwul jekkul mare ma damaa neex lool ay soloo mag ay reetaana mag neex na ma lool mais ci côté daal laa ko xaw a si sone daal ni muy def mare neexuma daal waaw ndax nit bu dee daf laa di jéggul bëgg a ànd ak yow dangay wàcc nga ànd ak moom nañ ko bàyyi mu sëy sëyam waaye waaw maa ngi jéggulu ci kàddu yi lu ci rafet ñu bokk ko lu ci xaw a demee tuuti ñu xam ne affaire bi moo demee noonu waaw baax na. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant waaw théâtre bi nag maîtresse bi neex na neex na trop macha allah waaw affaire yi moom yeete la rek wante nag mère Diagne moom dama koo mere dama koo mere trop sax waa dafa war a mareem da ko war uuf comme ni ma uufee Lalla waaw la tamit nee na patt moom daal patt bi rek lay maye waaw moom it dafa war di wax kii daal mareem daal waaw dafa war daal di wax ak mareem waa parce que mareem mi ah man ci sama gis-gis xëy na sëye ko tax a jóg waa ñaar ñee buñ leen buñ ci génnee rek laal la tamit tax lu gumba ba a gis dara bañ a dégg dara te jéem a jël mareem mii def ko ci xolam tamit ah loolu rek la de loolu la moom waaw man daal gisuma ci problème xanaa daal maire bi rekk maire Diagne daal man daal taxawaayam moom moom rafetluwu ma ko dara dara dara ñaaw na torop waaw biram nag moom mi ngi noonu rekk moom moom xam naa ni moom moom bu moytul moom ci jalika lay delluwaat jalika tamit na def attention bu baax waa na def attation bu baax sëyam bii nii bii nii mu nara dugg ah su ma sañoon mu téye daal téye bu baax daal merci. asalaamaaleykum euh, waa Lu Xew TV nuyu naa leen man nag dama doon seetaan tout le temps affaire bi si YouTube bi di ko si la laaj ci numéro bi comme ça ñu jox ma ko ma bëggoon participer. am na ñu bëri may dégg ñu naan Marème et tout ça Marème xam nga lan moo tax mère bi mënu koo bëgg laal la mënu koo bëgg la mu njëkkee la. gis nga nit soo bëggee ñu bëgg la wala yow yaa koy def ca kër ga Marème nu mu duggee ci kër gi la Lalla du ko mën a bëgg Noura du ko mën a bëgg yaayu yaayu Cheikh du ko mën a bëgg mère bi du ko mën a bëgg loolu kese kese kese la kese nit ku nekk booy dugg ci kër dafa am noo fay duggee waaye na mu fa duggee la bu fekkoon dañ ko takk dañ ko takk mu toog këram ñu takk ko ni ñuy takkee euh, nit takk ko def li def li mu war ci moom lépp waaye moom déedéet dafa dafa dafa mëkk soos bi te mburu bi ñëwul waa bu xaaral ba mburu bi ñëw mu boole mburu bi ak soos bi lekk ñu boole lekk boobaa moom même buñ ko bëggulee sa affaire bi dina neex waaye déedéet dafa dafa dafa lekk soos bi te mburu bi ñëwul loolu la moo tax nu mu duggee ci kër gi la moo tax te mënu ko bëgg man moom maa ngi ci laal la a këram ëpp na <laughs>